waaye yàgg na quatre vingt ba léegi lu dëgg mat na vingt-cinq ans tooñaatu ñu fi kenn dañu toog jàpp sunu njàmbur rek waaw bu ko defee kon nag ku bañ la woon dellusi si nag da ñuy may jàmm ba nga ñuy may jàmm parce que gendarme yi am nañ ci ay njaboot policiers yi it am nañ ci ay njaboot douaniers it am nañ ci ay njaboot ñi ñuy tudd nervi yi ñi ñu am ci ay nervi ñoo leen ëpp fuuf te ñoo leen ëpp lu ne waaw na kon nag bu ñu bëggee jàmm jàmm am waaye ñu ngi leen di xaar ci terrain bi lu ñuy luñ ciy tëral waaw incha allahu bu ko defee noonu rek la toll. <laughs> sama góor gi léeg-léeg mu jékki-jékki rek tàngi jëpp waaw <laughs> ma ne ko góor gi mu naa ma ne ko déet xam naa ne la woon ca turandoo ba mu yëngu ci moom waaw keroog ca ba dafa ñëw waaw bàyyi ma ma ne ko eh te <laughs> ngaa toog rek waaw ndaa tàng rek waaw dama ma dem ma ne ko bàyyil noonu ña ne dinañ ko régler ba ñoom colonel euh, Malick Cissé bi ñoom it def seen warugar waaw ah, taxaw taxawaay ba farafet sunu matériel yañ doon jéem a nangu ñu delloo ko par force daal leen jaaxal mooy dañu defa ne maa ngi ci biir cortège bi ne xëy na bu ñu arrêté cortège bi arrêté ma man sécurité bi danañu affolé te bu ñu affolé dinañ jéem a defanteeg ñoom te bu boobaa dinañ ci profité ku ñu bëgg a jàpp jàpp la dem denc leen ba noppi tere gàmmu gi loolu la ñu tëral dañ koy nëbb mais ñun xam nañ ko looloo tax moom Macky Sall mu mer ba wàcce ministre de l'intérieur ba. ndax la mu waxante woon ak moom affaire ba marché wul du marché abadan waaw des mooy na commencé ranger ay bagage am mu ngi sonn nag pour troisième mandat daf koy nëbb man ñu ko jege te nekk ñu ci ay yi ñoo ma ko wax ni ma mu ngi préparer troisième mandat li mu mën yëpp mu ngi koy def mais on verra ñun ñun même bu ñoom Sonko marché wul ñoom ñi ci des marché wul man je m'en occupe que am na lu jaaduwul bu ñu demee ba bi jamono ñuy tudd président bu Congo Brazza ni mooy numéro un waaw xoolal loolu mooy numéro un ci franc-maçonnerie ni président bu Gabon mooy numéro deux sunu président ñun mooy numéro trois ci franc-maçonnerie combine bëre mooy quatrième fii nii xoolal loolu combine bëre benn wax la ne nit ñi bàyyi xel seen bopp li xew ci réew mi ëpp na góor gaa ngi koy wax ci yenn ti waxtaanam xale yaa ngi koy teg temps yii waaw ñu senegal li fi xew ci ay nit ñu faatu ak nit ñu feebar mu ni jaaduwul wax na dëgg parce que la ko def nit ñi xamuñu ko may ñun xam nañ ko wax naa leen ko fii ni leen ba Macky Sall toggee ba léegi ku fi baaxoon ci senegal faatu nga wax leen rekk ku fi baaxoon rek dem nga ndax ay fétiche ah mais corona moo gën a tuuti corona bii moo gën a tuuti li ma leen wax xam naa ko bari na ñu dee la leen rey waxuñu ko waaw boo defee kon nag noonu la toll nag ñun ñëpp nañuy jël suñu responsabilité may yëgal ñi sant fii ci Tiwaawan am na loo xam ne buñ ci duggee mag ñoom barke Cheikh al ak ku leen mën a aar ak ku leen mën a protéger mag ñoom waaw wontu baaxul may wax Sidi Ahmed muy yëgër yëgër yi mel ni kuy def dara te fekk cere rek da ngeen fàtte la mu doon wax ca kër jëmb ja xoolal loolu ba keroog bi situation bi amee may yónni Serigne Ndiaye bii mu ànd ak délégation ba ñu àndal ak waa cadastre ak Ablaye Fall bii ñu dem ci këram pour wax ak moom ñu dem fëgg ko mu lànk ni du ubbi moom Seydi Ahmed ñu fëgg fëgg mu lànk ni du ubbi ñoom ñu toog di ko xaar ba heure bëgg a passé ñu fëggaat mu lànk ñu mujj ni ñu ngi koy defal xawma lu mu tuddati hmm? waxuma la baay bi la ca des pour mu représenter Maodo procuration waaw assignation bi ñu ko yónnee pour mu teew ca procès ba assignation baa ngi nii ak man mais dafa ragal demul demul kon nag comme ñeemewul li muy def kay na bàyyi ni man am na fayda guddee ni bu ñu ma convoqué woon ma dem daa lu may ragal amu fi moo tax nekk ci ruq yi nag di def yu kenn xamul la benn mbokk waxoon ni ma seen noon yi ca seen maam sëñ kër ba léegi masuñoo jàkkaarloo ak yéen xalima ak kurus rek la rek mais duñu ñu jàkkaarloo yéen mukk mais jaru ko jaru ko xalima ku ne mën na ko waaw arsenal bi ma yëg Cheikh Ahmed Tidiane yor ko loo ilaa ilaa sa maam du moroomu ñi fii nee na yow mii doo seen moroom lay de san lay de san lay de san